jaam ak pexeem bur yàlla ak dogalam kaso kenn yéenewu ko kenn waaye dogal ba wàcc na juge ba àtte na daldi nay dogal wax ni Lac de dañu koy jàllale ca prison ba nekk ca rëbës mu nekk xibaat bu tiis ndax Lac de nekk na koo xam ne ku am yar la musta def loo xam ne nit ki daf koy gis xepp ko musta wax loo xam ne nit ki daf koy dégg xeeb ko làmb ji musoo dégg mu wax ci benn kàddu gu ñaaw moo tax ñépp ànd nañ ak moom promoteur yi amateur yi rawatina kii di Abdoulaye Diop xaas ba ci influenceurs yi ku ci mel ni Adamo ak ñeneen ak ñeneen wax nañ ci waaye nag nii la mën a demee jombul kenn. magat la ci képp koo xam ne mu ngi ci àddina que ni suñu boroom mooy dogal te dañuy wax ni boo nangool yàlla dogal doo sonn sa xol du jeex. sëriñ Abdou Lahad Mbacké daana faral di wax naan mu ngi nii des ko wax ko am gët ko amul gët jot te waxal bëri na waaye koo yee ba mu yeewu nga daal di koy bàyyi muy nelawaat moo tax nit ki lépp luy ñaanal wala lépp lu ma lay ñaanal na lay ñaanal yàlla suñu borom musal la si cat ak làmmañ parfois cat dina jëfloo nit ki loo xam ne moom naru ko jëf parfois cat dina jàpp nit ba mu def loo xam ne waru ko def lu ci mën a am. Lac de askanu Sénégal ñu sa ginnaaw ñu ngi lay ñaanal di la wax fi nga dugg yàlla sunu borom génne tolof tolof ak doomu aadama ñoo nekk àddina boo fi nekkee du chaque jour lay neex léeg-léeg mu metti lool ba nga ne sunu borom xanaa man rek la bind waaye léeg-léeg dina neex ba nga yaakaar ni du jeex kon fépp foo nekk àndal ak gëm yàlla xam ne sunu borom mooy tege natt te gëm nañu incha allah dina la ko teggi maa ngi ñaan képp gis vidéo bi nag ko partagé. dugg ci commentaire yi ñaanal ko waaye maa ngi ñaanal képp koo xamante ne duggagul kaso yàlla na la kaso ump yàlla bu la fa sunu borom mësa dugal jërëjëf